pour organiser benn demi euh, journée de sensibilisation euh, pour euh, bokk ak suñu ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal liggéey ci port bi li nga xam ne mooy moo leen war a aar ah, li nga xam ne moo leen war a aar ci place yi ñuy liggéey dañu bokk nag ci li nga xam ne mooy liy organiser la caisse de sécurité sociale di organiser at bu nekk mooy ce qu'on appelle le mois de la prévention dans ce mois de la prévention nag ñun tamit am nañ ci wàll comme am nañ ci wàll nag ren jii dañu choisir thème boo xam ne mooy li ñuy wax code ISPS mooy liy toppatoo yëfu sûreté installation yi nga xam ne ñoo nekk ci port bi parce que xam ngeen menace yi dafa bari ci àddina bi am na ñu bari ñoo xam ne dañuy yeewu suba seen activité yëpp mooy dem defi njaaxum fet na am na ñeneen ñoo xam ne nag sàcc moo leen fay dugal am na ñeneen ñoo xam ne leneen moo leen fay indi mais loolu nga xam ne nag mooy am ci fi ñuy liggéeyee moo tax tey ñu def ne loolu mooy premier point bi nga xam ne war nañ ci waxtaan deuxième point bi nag mooy risque mécanique yi nga xam ne dina am ci liggéeyu paasu liggéeyukaay bi pour que nit ki bu ñëwee yow jóge këram dem di liggéey mu jóge fa ak jàmm mu nekk loo xam ne dafay ñëw pour daan doolem bu daaleen doolem ba noppi mu ñibbi alors risques yi nag bare na sax parce que mun naa wax ne y a plusieurs mais bi nga xam ne moom laa soulevé mu nekk loo xam ne dañuy fàttali suñu bopp di ko fàttali ñuy liggéeyal mooy dafa am ay produits yoo xam ne ay produits yu dangereux la yoo xam ne dañ koy transporter te mënuñu ko ñàkk transporte parce que damay joxe exemple nitrate d'ammonium nitrate boobu y a de cela deux ans am nañ fi ay problème parce que dañ ko stocké woon ci port bi biñ ko ñëpp yëgee nag si la ñëpp jóg ne loolu warul am ñu jéem a seet li nga xam ne moo koy yóbbu mais nitrate boobu du fii rek la nekk loo xam ne bees la fi depuis 1919 nitrate bi mu ngi def njaaxum si àddina bi yëpp. li nga xam ne perdre nañ seen bakkan kenn xamul naka la toll te loolu yëpp c'est parce que euh, dañu jëlul précaution yi nga xam ne moo war pour que nitrate boobu boo koy transporter wala nga koy manipuler mu nekk loo xam ne dina am dina dina la aar. am na yeneen produit yoo xam ne euh, bu si nekk gis nga ndox sax day rey ndox ndox bi ngay naan sax day rey bu fekkee ni amuloo euh, disons capacité xam ban limite nga si nga si war a jël foofu nag ñuy liggéeye place la boo xam ne li ñuy wax risque moom am na fu nekk mais ku si nekk fa ngay liggéey nag yaa war a def ba fa ngay liggéey la fa xam nga moo fa nekk risque ñu seet ko buñ ko seetee ba noppi ñu jéem a seet naka la ñuy defee pour mu bañ a indi jéey. recommandation yi ñu def nag mooy li nga xam ne moom la conseil national du patronat joxe bi nga xam ne ñetti recommandation lañ joxe parce que en réalité ñun ñoo boot liggéeykat yi par leur organisation professionnelle mais recommandation bi si jiitu mooy ñu respecter lépp li nga xam ne mooy législation yi parce que Sénégal quand même am na ay loi loi yoo xam ne képp ku ko respecté li nga xam ne moom la ñuy wax muy nga am ay problème euh, risque yoo xam ne day survenir sa kër du fa am boobu mu si jiitu ñaareel ba nag yaag ñi nga xam ne yaa leen di liggéey kii liggéeylu ak kii liggéeylu ñoom ñëpp ñoo war a ànd pour def en place ce qu'on appelle euh, un cadre sur sain et salubre boo xam ne dina leen aar dina permettre tamit ñu fay liggéey ñu liggéey dans de bonnes conditions ñetteel bi nag mooy li nga xam ne mooy dañuy wax analyse place yooyu nga ñuy liggéeyee ñu seet ko bépp bu si nekk boo xam ne am na fa luy gaañ ñu dindi ko. loolu daal mooy recommandation yi nga xam ne defoon nañ ko tey. ñuy liggéey ak ñiy liggéeylu waaw ñuy liggéey ak ñuy liggéeylu. voilà liggéey ak mooy liggéeykat bi waa ak kii ki nga xam mooy liggéeylu. ki nga xam mooy liggéeylu.